alors Bessel carnet de voyage tey da nga ñuy yóbbu euh, dëkk bu ñu naan euh, Kédougou ñu fekk fa ab kéemtaan waaw. Euh, Pape Cheikh euh, sànq maa ngi leen koy wax dañuy dem rek euh, dëkk boobu tudd Kédougou waaye dem nag ci benn village boo xam ne mu ngi tudd Dindi Ferlu Dindi Ferlu nag boo leen ko déggee moowu pël la maanaam ca xeer ya mhm. xeer yi nga xamante ne ñu ngi sotti ndox mooy fi nga xamante ne tey bërëb boobu laa leen di woon nee naa la bërëb boo xam ne bu kéemtaane lool la digganteem nag Dindi Ferlu ak Kédougou à peu près ay 30 kilomètres la waaye tamit diggante Dindi Ferlu ak fi nga xamante ne tamit foofu la chute d'eau yi nekk diggante bi nag 1 kilomètre la li ñuy def rekk mooy dañuy dem seetaan loolu daal di dellu si wat nag faramfàcce ko ayta <laughs> yaha waɗani haala rewano wakkila sala mi awino ɗum kadi ɗo kadi waddoyden no no ɓowri quoi kati mo waɗata bërëb bi bokk na ci li nga xamante ne rek moom mooy valeur u mooy dindi ferlu dindi ferlu nag boo leen ko déggee moopal la maanaam ay xeer yoo xam ne dafa nekk ci kaw montagne ndox mi di ci wàcc moo tax ñu tuddee ko rek dindi ferlu village ba bërëb bi nag bokk na ci rafetaay ci taaraay li nga xamante ne rek moom mooy Kédougou boo fi ñëwee tamit di nga xam ne vraiment kéemtaane bu baree bare moo ngi fii dinañ xam ne mbirum yàlla la ndaxte ndox mi kenn xamul fan lay jógee te nee nañu lu mu taw taw taw taw lu ndox mi bari ndox hauteur bi nga xamante ne euh, ci la nekk mu nekk loo xam ne vraiment c'est extraordinaire nekkul fenn lu dul fi nga xamante ne moom mooy Sénégal est-ce que mën nañoo xam euh, ndaxam waa dëkk bi tout dañ fiy ñëw waaw waa dëkk bi tout le temps dafa ñëw parce que léegi euh, Dindé Felo dafa nekk ci loo xam ne bokk na ci patrimoine li nga xam ne dafa protégé donc day fekk du fait que tubaab yi dañ fi ñëw di visiter chute bi tout ça donc les populations se sont retrouvées ñu ne ñoom il faut ñu protéger chute bi parce que boo xam ne euh, euh, chance boo xam ne la Lii dafa la moo ko am te mu nekk euh, un peu dans le Sénégal oriental muy Kédougou donc dañuy gis ay gars yi jógee ba Europe États-Unis di ñëw di visiter Chine bi donc il va falloir que ñun mun ko protéger c'est pourquoi aussi tous les jours day fees donc day fees ay nit donc tey moom on a trouvé que touristes yi dem nañ xam na mais site boo xam ne la moom tous les jours que Diofior moom am na ay ay nit yu ñëw fii di visiter. lan mooy secret secret bi mooy euh, yoon bi d' abord nit la dafa metti da ngay def un kilomètre de marche mais boo accès da ngay fàtte coono bi ndax seddaay bi aussi euh, chute bi ndox bi fu muy jógee doo xam fu muy jógee day génn ci xeer nii rek di ñëw donc lool mooy vraiment le secret le charme de la cascade bi Ndefleng muy rek kéemtaanu suñu borom ndaxte kenn xamul fu ndox mi jógee lii mooy kéemtaane suñu borom euh, ba tax na rek vraiment maa ngi profité daal xam naa ñi waate TFM ñi nga xamante ne ñëwuñu mën naa leen fi ñëwal dama faral euh, dama am euh, lu ma déggoon euh, ci ndox mi nee nañu dafa nekk bërëb boo xam ne aussi c'est un peu mystique est-ce que c'est vrai waaw c'est un peu mystique parce que da ngay gis ñu bëri même ñu nekk ay Dakar wala feneen ah di ut ay bidon di yónnee yónnee ma ndox bi aussi je me ndox xam nga si dafa naturel te ndox bi amul benn amul dara loo xam ne dañ ko si boole def ay galaaj wala leneen donc dañuy ndox ndox bu mel ni si moom boo ko sangoo lépp loo xam ne lu bon la rek da koy toj donc moo tax ñu bëri dañuy ñëw fi dappale ba tax nit ñi léegi di ko def ay euh, ay yoon yoo xam ne dañuy di ay bidon ndox pour yóbbu ko euh, di ko sàmm. ndax euh, mi ma doon gën cee indil. mu <laughs> sàmm ci ñuy nit. Euh, indi nañ ko Pape Cheikh bërëb bi nag lu tax mu kéemtaane parce que bërëb bi kenn mënu la wax ne bërëb bi. fii ndox mi jógee. non euh, kan moo kañ lañ ko découvrir. Ah, mm-hmm. kenn xamu ko. ñoom dañu xëy rek gis bërëb bi mu mel noonu. Ah. Euh, donc mag yi daal di dox di dox waaye li li ci gën a neex mooy que ne mm-hmm. booy dox un kilomètre boobu Pape dafay mel ni da ngay dox des kilomètres et des kilomètres parce que waaw te un kilomètre la dafa dafay gudd maanaam nee nañu bërëb boobu balaa nga fay yegg si mhm. di nga sonn di nga daj lu ne xeer yi dinañ la gaañ di nga dagg lu ne di nga ko daj mhm. parce que amul yoon boo xam ne yoon bu bu bu bu bu set la bu ñu mhm. mun a aw parce que ah, ay ay xaaxaam ay xeer moom moo ci nekk mais Pape Cheikh di nga découragé sax ba nga naan xaaral ma dellu mais boo demee ba yegg si ci bërëb bi da ngay fàtte yoon bu sori boobu nga xamante ne jaar nga ko fa ba yegg si ci bërëb boobu parce que da ngay gis benn montagne montagne boo xam ne si suuf ci kaw mu mel ni mm. ay escalier di xelli ndox xamoo ndox fan lay jóge mm. nga gis ay garab tiim ko wàcc ñu tooy xepp te ba pare ci suuf am ay jaan mun nga ci sangu te duñ la matt duñ la def dara mu nekk loo xam ne lu kéemtaan lu mu taw taw taw taw taw taw ndox mi munul ah, dépasser fees du fees munul fees foofu rek lay yem te ba pare xóotul ah, ah, ndox mi mu ngi wàcc rek nee nañu nag nasaraan yi demoon nañu ba jëli hélicoptère dem ci kaw mais boo yéegee ci kaw naaj bu tàng jër moo fa nekk mm. xeer yu wow koŋ mënuñu xam ndox mi fan lay jóge nekk na loo xam ne lu jaaxal nasaraan yi la mm. parce que actuellement ñu ngi ciy def ay études pour ñu mm. xool ndox moomu mm-hmm. fan lay jóge du lu ñu teen bu bënn bu ñu gis buy sotteeku mm-hmm. xeer daal yuy sotteeku ndox la oustaz yàlla riis kullu yawmin huwa fi sha'nin yàlla ne si ina Muhammad waxal gaañi ni bis bu ne maa ngi ci mbir. ne rek man yàlla maa ngi ci mbir. <laughs> waaye mbir muy jommal gaa yii. Eh. ndax moom yàlla moo not lépp nag. Mm-hmm. wa qaahirun fawqa ibaadihi eh, eh, ndax ndax nit mën na li mm-hmm. wallaay nit mënu ko. bi mu defaroo ba noppi xam ñi mu bëgg a bind dañuy gëmmintu di nelaw moom gëmmintuwul nelawul. Mm-hmm. laa taaxuzuhu du ko jot sinatun gëmmintu wala nawmun du caagin nelaw. xam nga lii kuy gëmmintu mënu koo defar. wallaay kuy nelaw mënul lii de. wa huwa qaahirun fawqa ibaadihi yàlla not jaam yi moo tax jaam yi gën a jommi rek raw tamit ci dindi ferlu village bi amuñu ndox. Ah. dëkk bi parce que des fois dañuy jékki-jékki dañuy dem fu sori mais ndox boobu la ñuy utiliser. moom la ñuy root moom la ñuy naan parce que ndox bu sell la bu set la. Mhm, soo ko doo gis dara mais ñoom bu ñu demee dañ koy filtré waat daal di mhm. koy naan. Mhm. fa la ñu sax la ñuy fóotee. parce que am na espace boo xam ne ndox mi buy wàcc li euh, nga gis fi ñu romb noonu am na fu ñu romb nga gis ñu weer ci ay yére. ci bant yi ñoom foofu la ñuy dem mais sori waat ndoon tamit ak fi nga xamante ne. Euh, kii bi ndox mi fa lay wàcc ñoom fa la ñuy dem fóot daal di yóbbuwaat ci kër gi dem ca chute ba root ndox mu sell def ko ci seen i bidon ñëw ñu jox gan mu waaw ah, mu naan macha yàlla ngoog yàlla ngoog yàlla yàlla doole bëgg loo ko